الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أهرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق مبكي جلدين مبكي mbokki السلام عليكم di nuyu leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baalu àq te di leen baalu àq di ñaan képp ku fi teew jéego yi nga fi def yuy dikk yeeg yuy dellu yi yàlla na ko suñu borom ful te jéego bu nekk mu dogal ci malaaka moo xamante ni dañu ciy ñaanal ba keroog bis bi di dellu si ñaan yooyu yi tamit mu jotale ci ci mag ñu tedd ñoo yi nga xamante ni sikkuwul ni bokk nañu ca na suñu boroom doon junj ca minal muminina rijaalun sadaqu kon yàlla na suñu borom fayal ci seen taxawaay boobu yi noo ngi door suñu kàddu ci di nuyu kilifa yu tedd yi ci réew mi di ci jiital Cheikh Mouhamadunil Muntaqa ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ñaanal Seydi Aboubacar moom i mu yàgg fi lool te wér ak mboolem kilifa diine yi ci réew mi yépp mboolem koo xamante ni rek sa yàgg amal na njëriñ lislaam yàlla na suñu borom yàggal bu baax a baax di nuyu yi tamit kilifa jataay bii di kilifa ëtt bi di sëriñ daam jaxate ñaanal ko mu yàgg ak di ko joxe kon sëñ Ousmane yàlla suñu boroom gën a yàggal taxawaay bi defal la ak wér ba li ngeen yéene ci liggéeyal lislaam jaare ko ci xam-xam ak tarbiya suñu borom defal leen ci tawfiq bu baax a baax ya waaw ñu ngi nuyu bu baax a baax Umami Moustapha Jaxate moom it di ko sant bu baax ci taxawaayam ak sama nijaay sëriñ Pape Jaxate sama maam sëriñ Omar ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu dama doon bañ a dugg rekk ci tudd gi am ñu may tëb moo taxoon ma jiital ñooñu ah Baye Talla moom mooy mooy bibliothèque bi moom laa ko tuddee kon sëñ Ousmane kon xam naa dañ lay daal di bàyyee kàddu gi nga defal ñu rek na nga ñu daal defal fàttali ñu ak mbokkoo waaye tamit waxtaane waat bu baax a baax wàllu tarbiya bi rawatina yarum ndaw ñi mi yeya sant te yeyoo sant te cantam di jural ki koy sant njariñ ngi julli ci ki nga xam ne julleem moo nu may jàmmi tey di may jàmmi ëllëg ndax ordre sunu boroom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ñu ngi ubbee suñuy kàddu làqu ci yàlla mi nga xam ne ku làqu ci moom mucc ci seytaane waaye ku dul moom nag mun laa musal ci seytaane yàlla yàlla dox suñu digganteeg moom yàlla nu yàlla kàttanal wan nu ay fiiram ak i mbëppam musal nu ca nu jàll jëfal yàlla la mu nu sant mooy jaam su boobaa yàlla nangu su nangoo yàlla jàng su jàngee teful yàlla nu ko dencal ba keroog mu amee njariñ yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata allah bi qalbin salimin ñu teg ca it sant yàlla moomun waxoon julli ci wasalaam waaye ñaan yalla nag julli googu ak sëlmal googu yalla bu mu dañ mukk di ko sotti ci yonent boobu li fee guddee gi am bëccëg di am waaye yàlla na ci boole ñoñam na ci boole ay saabaam na ci boole mbooleem koo xam ne sa yitteeg sa yéene mooy teg tànk fa mu waxoon ne tànk war na faa tege taxaw yàlla am na kàttan def loolu yàlla ko def ñi ngi nuyu niko ko sëriñ Jibril waxee léegi daanaka laa yaxtaajal takraar mooy xulafaa turux yi ne ci mi jiital ci nag asayid alxalif cheikh mouhamadinil muntaqa ayaddahu llahu wa nasarahu wa saxaxa badana wa atamma niyaata ak mboolem yéene xolafaa wi nekk ci réew mi ñoom ñëpp yàlla yàlla taxawu leen te aar leen di wàcc si ci baas bi di nuyu kilifa yi lim na leen léegi laa yaxtaaju la takraar xanaa moom jaajëfal ko muy ku ñu xam mu jël dundam yépp jël wéram jël taam jox ko yàlla defe naa ku xam ci yéen Touba TV te du du télé bu kenn di umpale ci réew mi da xam kan mooy Serigne Jibril Ndaw ci taxawaayam bu rafet waaye ci xam-xamam bu yaatu waaye ci gëstoom waaye ci yaatalam ndax fu fu làmp nekk ci réew mi fu mu doon dem na fa ak équipe am dékk leen micro ngir ñu tasaare kooko la mu yoroon ci ay njariñ te mi rek a tax kon Jibril yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla yokk la ña nga jiite yàlla na yàlla def barke sa diggante ak ñoom gannaaw bu defee juboo ak déggoo yàlla am na kàttan ci def ko yàlla na ko def yàlla yàlla dundal télé ba ba mu jur ay tele yu baree bari ba fii nu nekk mu am ay tele ñu ngi nuyu mboolem ñu baas bi yépp solo faaw yi bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn bàyyiwunu ñenn kenn ku nekk cir bay yell ak barab bay yell ñu wàccee la fa ñoo ngi la fay wàccee donte lee jaaruñu ci sa tur ndax niyatul mu'minu mu'mini ablahu min amali bu yooyu yépp jàllee dañu bëgg a fàttalente ñaari tomb li ñu ci jublu nag mooy li yàlla waxoon yonent yàlla muhammad fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ولا فذكر إنما أنت مذكر wala fa dakir in nafaate dikra benn bu ci nekk ordre la bu yàlla teg ne jullit ni nañuy fàttalente te aleyhi salaatu wa salaam daan wax ne da woon saaba yi ne leen su ngeen rombatee dër boo xam ne daa ci dëri aljanna yi na ngeen foytu ñu ko yow yàlla yónni te xamal la lu mu xamalul kenn ndax wa allamaka ma lam takun taalamu kenn déggu ku dul mu ne waaw ñu ne ko lan mooy riyaadul janna lan mooy dërub aljanna mu ne fu ñuy waxee yàlla wala bi yonentam wala kenn ci gaa yi yàlla yi wala ñu faate ak bokk loola dërub su dërub suñu borom dërub àjjana la kon am nañ dalu xel ci ne barab bii barab la bopp mu ngi bokk ci dëri aljana yi li fi feeñ ci ay foyteef yàlla nañ ko jariñoo yàlla bu ñu ci dara ump yàlla yàlla defal nu dégg defal nu déglu defal nu jëfe gannaaw dégg te nak nu nag fatxu ak fëhmu ak fasaxa ndax mooy tax nu jariñoo li ñu fiy wax yooyu yëpp nag du dara ci yàlla mu def ko ci nu yàlla ko yàlla def li ñuy waxtaane di ak bokk lañ cey dolli mooy yar ak teggin Ben bu ci nekk mat na te mu boppam rawatina bu mujj bi ndax fi jamono toll képp kook dundoon nga dara ca la mag ñu dundoon yëg nga ne jamono tuumaal nañ ko donte lee jamono moom yonent yàlla xam a nee na woon laa tasubbu dëhr fa inna llaaha huwa dëhr bu leen sikk mukk jamono ndax jant bi ni mu daan fenkee jusqu'à présent noonu lay fenke ni muy sooyee noonu la daan sooyee kon nag su jamono soppi ko nañ tuumaal waa jamono ndax ñoo soppi jamono yi ko soppi it bari na ci loo xam ne ñàkk jàng wala ñàkk a topp wala ñàkk gëstu nekkiinu mag ñi ak seeni jukko mënu ko yóbbee ñu dem abbi culture ba mel ko amul culture saqaafa jàmbur lañu indi tegal ñu ñu topp ja mu mu sànkunu tàbbal nu foo xam ne génn fa jafe namu ndax dootuma ko def fi mag yoo dégg su ma dundoon ba génn ca lay àndal li jiitu loolu moo di ak bokk nag mën nañ wax ne mooy alal yàlla ci kaw suuf ndax yaa ayyuha nnaasu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama lu tax inna allaha kaana alaykum raqiba sunu borom ne yéen nit ñi ñu ne ah mu ne na ngeen yëg te ngeen bàyyi xel te ngeen gëm ne man maa leen bind waaye ci benn bakkan yàlla day feeñal ay kawtéefam bu feeñalee kawtéefam nag pour nga gëm koo day indi argument boo déggee ma naan xalaqa sama wal ard am na lu mu joxe ngir ñu gëm ko mu wir firnde ci ne ki wax lool yi kat boo jàppee ne mënu ko def na lu gën a garaaw loolu nga ne ko lan mu ne ma bind asamaan ak suuf asamaan ak suuf moom dafa doy sëkk kawtéef sunu boroom kon moo bind doomu aadama yépp ci benn bakkan muy aadama yàlla génnee ci aadama awa waaye yemul foofu yàlla dafa def ñeenti mbir yoo xam ne ku dul moom mënoo ko mooy sàkku ko amul ndey amul baay sàkku am ndey te amul baay sàkku am baay te amul ndey sàkku am ndey baay mu ne bi ma génnee ci aadama awa dama génnee ci seen diggante ñoom ñaar aw góor ak jigéen waaye ak séegul nag ci la tax muy wax ne kon nag na ngeen bàyyi yàlla xel mi def loolu te ngeen bàyyi yàlla xel ci loolu mu def waaye la ci génn di bokk nag na ngeen ma ko waggaral ñu ne ko yàlla lu tax mu ne damaa teg bët damay càmbar damay contrôler damay xool koo xam ne sàmmal na ma loolu ëllëg ma fay ko yiw ku ko sàmmut ma jaara yow fa may jaara yow yàlla na ca mucc kon aji aji fonk bokk daa fonk alali yàlla waaye daa fonk alali boppam di ko yàlla jox tem xam kii rek bokk nag. di ko tasaare kooku moo réere xaq yàlla ci jaamam ni waaye mu réere alali sunu borom tabaraka wa taala ba tax sunu borom ne inna laa kaana aleykum raqiba damay wax nag ne poste bu nekk ka fay contrôler mënees na ko dribler ba mu des yàlla ndax laa yaazabu anhu misqaalu dara mu maa tukkinu suduruhum wa maa yu'linuun li ngay xalaat ci sa xel ci sa dënn génnewuloo ko sunu borom ne moo li nga ne li nga ne fàng yamale lépp laa gis xabiirun bi ma taamaluuna aji dañ kumpa léeg-léeg sax ñu ne nit daal dañ kumpa waaye nit day bañ kumpa waaye nit mënut dañ kumpa dañ kumpa kenn na ko def alaa yaalamu man xalaqa wa huwa allatiifu tegal alxabiiru moo tax bokk na ci lii wane ne nit gëm na yàlla ragal na yàlla mooy li ko yàlla jox muy alali sunu borom mu fonkal ko yàlla te lolou moy ak bok ba demee ci lay bi suñu borom di wax bi yàlla bindé amana ne suuf jëlal ma suuf da ko ne atunu mako mu ne asaman téyel ma asaman ne ko atunu mako mu ñëw ci lañu leen téye leen ma ñu ne ko dédé inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna fa abayna ñum ñëpp nak ay yahmilaha ku ko yanu kat bi ku ko yanu ki dëgër bop ku ko yanu ki réere boppam moy nit وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وأين أمنا بوين تي وغرال يالا لم كو ورا وغرال بودي خمنا نيت تي خمنا بداية الأمر ناخ بي يالا واتي آدم إني ملاكي فينيال خم خم كرو لا فينيال تربية دانو تيو إن شاء الله بسم بروم ني ملاكي إني جاعل في الأرض خليفة خالو أتجعل فيها لم ينيو لم باغال sunu bari len tej tëj len sen gémmiñ dama xam lu gen xamul te lu gen mun inni a'lamu aalamu la ta'lamuna wa allama la adama al asmaa kullaha bo ci delsee da nga yegne khalifa yàlla bi nit don ci kaw suuf lolo tax li asamaan atunu nit attan ko xale bi don jàng legi bi muy yëkkati rek sama xel dafa dem ci law andalna hadha al quraan ala jabal pour wan la degré bi alxuraan am waaye ki ko yàlla jox muy nit fan la toll yàlla sunu borom def ne laay yi ngeen di jox ay gone yu amul 10 ans ñu def ko ci seen dënn di daw di romb di bëre di fenkonte ci àll bi di sol tuba yu gàtt di def tànku neen digi di leen jam do xadi di leen jam mu ne pourtant kooku de yor na loo xam ne asana attanu ko suba attanu ko mooy alxuraanul karim sunu borom ne bu ma ko wàccee woon ca doj wa ngeen gën a miin ci li ko doon mu nit yanu ko kon nit moomu ku war a xam boppam la ku war a càmbar boppam la ku war a wagal boppam la ndax euh, xalaqallaahu aadama ala surati rahmani aw ala surati aw kama xaal bi yàlla nammee indi aadama dañoo wax ne jëmmi boppam bu doon luñ mën a gis ñu ne ah mu ne ca la recopier aadama teg ne kii laa bëgg ñu ma koy nuróoleel ci kaw suuf waaye nuróole gudul nuróole nuróole gan nuróole nuróoleeg xam ne man mi ko jël man mi ko bind dama ko bëgg waaye am mission bu may def ci moom boo xam ne ku moom attanu ko muy nit moo tax nit moomu lim mu war a gën a fonk ci àdduna mooy jaamu ki ko fi indi te indi ko fi ngir mu jaamu moo tax laa yaa ngi donte buur na nopp yi mënut a ñàkk buur nopp yi ndax laay day laay boo xam ne mu ne su ko jéggi xiyal bidaaya mooy faw nit nit yëg ne bi ko yàlla bind moom jaamu yàlla rek a tax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa xarfu tasniis dafa def tasniya illa li yaabuduuni waaw yàlla bëggoo ci ñoom ñu sarax la mu ne déedéet maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yutimuuna lu tax mu ne inna allaha huwa razaq sul xóotil matin bu dee kattan maa ko am bu dee doole maa ko am may ki riche sama magasin du jeex waaye benn ordre laa bëgg ci nit muy mu jaamu ma jaamu googu nag balaa ngay def dara na ko defal yàlla te nga càmbar nag fa muy jaar ba baax yooyu nag dara nu ci dimbali li sëriñ bi doon wax léegi daara képp nag inna hadha alqurana yahdi lallati hi aqwamu yàlla nee bu ngeen ko xeebee it man yàlla xeebu ma ko nee na bu ngeen xeebee daara yéen a ko xeeb parce que importance bi ngeen xamut waaye man yàlla man xeebu ma ko ñu ne ko lu tax mu ne li indi te bëgguma dul moom te mooy diine li tax mu mën a jub mooy alxuraan daara alxuraan foo koy jëlee ci daara. ndax suñu borom ne bu ngeen lu ngeen seen mu taxaw jub mel na mu war a mel alxuraan a fa jaar bu fa alxuraan nekkut day mel ne nen désordre boo gis ñàkk alxuraan. إن هذا القرآن يهدي للتي للتي هي أقوم jaamu googu nag nga xam ne moom la ñu mag ñi bàyyi loon te mooy sa xorma mooy sa gidd mooy sa arme bi dox sa digganteeg nga mën a tàbbi ci yeneen loolu la fi mag ñi nekke woon minal bidaaya ila nihaaya tarixa yépp loolu moo doon seen maqsad moo doon seen jubluwaay mooy defar nit ba nit nite sëriñ Saam rahmatulah alayhi nee na daa am ku ñëw ci moom ne ko man day mbay damaa bëggoon ñu dajale nit ñi mu ne ko dajale nit ñi am na lu ci gën a yay mu ne ko am nañ leen defar ba pare soog saa boo dajalee ñu defarul ay bugg dañuy lekkante ku jekk ko sa morom lekk ko boo leen defaree nag bañ baax ñoom dañuy defare foofu nag warkàlla njaamur yàlla yàlla defal na ko ci point boppam wax naa ko jëmm ji ne ko magu njaamur li tax ñu yéeme dëgg. mooy dañ lay defar dañuy def ci yow jom def ci yow fulla def ci yow ngor def ci yow xam sa bopp ba foo génn ki den du la soppi da ngay soppiwaate loolu yi nag mu mel ni mooy li jur jataay bi kon bokk gi tax ñu daje ngal la waaye nañu ko xam bu ñu ko xamee lii tax mu dund nañu ci taxaw la koy yàq nañu ko moytu yi koy defar nag ñett ca jiitu benn amu ci karaw mooy loxo bi làmmiñ wi tànk bi Babakar alayhi salaam yonent bi daa xëy ne ana ci kan moo xëy tey jàng alxuraan wala lu ni mel Babacar ne ko man mu ne kan ci yéen moo jël tànkam seeti mbokk te yàlla tax Babacar ne ko man mu ne ko kan ci yéen moo jël ci alalam joxe te yàlla tax Babacar mu ne ko man mu ne ko suuf fenkul ci kaw ku la gën tey jant ngeen baal jant fenkul ci kaw suuf tiim ku la gën yow yow te ñett rek la def mooy lan wax na ci làmmiñam lu rafet waxulu li naas xusna bari na bokk gu tas làmmiña fa jaar yow yow nga li diw def te bu dee lu baax nga nëbb te inna Allah wala laa yuhibu llah aljëhra bi suu min alxawli illa man zulim wa kaana allahu samian alima bi ngay yak sa mbokk defe ne yaa nga yàq sa mbokk dangaa juum sa bopp nga yàq jamono ji nga yàq sa mbokk yow sa mbokk yow defe ne moom nga yàq fekk ne yàquloo ko sa bopp nga yàq kon làmmiñ boobu mooy principe bi njëkk principal ci defaru bokk ndax waxu waxuulu linnaasi xusnaa waaye ba jamono ñëwee organe boo dégg la ñuy njëkkante mooy lu bon la musiba xew beneen bi mooy ñàkk a ca te yàlla tax ba mu ñëwee ci réew mi rek la réew mi tas mag ñi ci seen stratégie bu rafet danga daan gis ñaari mag kenn ki xam ne moo tene kenn ki mu wax ay dongaam ñu takkal ko sabar yu dugub wala lu mën a doon waaye duñ jaar ci penc de ca port ba la ñuy jaar buntu port dem sëppal ko ko guddi kañ la koy yëgal ne am na lu ma a jox. ay ay kaddu yi wolof la koy rànge ba kuy xamul doo xam moo tax mag ñi daan wax ñaara xam waaye ñett xamul bu dajee ci buntu ji ko gis nga sama gan ña ko gis na gan ña mu ne ko jaajëf léegi ku la jox koppu ceeb bu leen dajee ci mbedd bu leen xew wa ma ngay xool ba tub jox ko xorma mbaa mu wax nit ñëpp ne leen maa tax añ ah, te baaxul nag sunu boroom dafa wax ne li ngeen di joxe te muy am lay tax mu am njariñ mooy dangeen ko def te yàlla tax te ngeen nëbbu ko ndax in tux fu soda sadaqaat fa nii am maa xii nii am maa xii baax na am na njariñ lan ci doon wut am nga ko ci kon jëf googu te yàlla tax te mag ñi saxaloon ko nañ ko delloosi jàmm xew beneen bi mooy nañuy doxuk bokk suñ basiiru mbàkkem suñ tubaa daa wax ne ngërëmi yàlla yaa ngi toll ne suuf yoon yi ci jëm a ngi toll ne suuf waaye man Basiiru tàmm naa tànn naa doxu mbokk ngir la ma ca gis te réew mi nag moo fi raw réew mi sëñ Basiiru fi raw waaw loolu Serigne Sam rahmatullah alayhi da ciy jàngale lu bare bari ci Cheikh Mountakha mi te waxal na boppam ne yàlla sagal na ma diiru may dund man Basiiru diggante bu ma defar defaru na ba mu des benn diggante te yàlla ca yàlla ca na mu loola moo tax defaruwut te ba ko waykat ba di martial daf ne fuñ deeti jëliti koo xam ne yitteem lépp muy islaahu zatil bayn te sëñ tubaa nee na ku bëgg mujj gu rafet bëgg dund ku barkeel bëgg dee dem na aljanna xool ñett ñu ne ko ban ak ban mu ne salaam miñ na tooy ak zikrullah tudd yàlla dara melu ni cheikhul xadim nee na ñettay tax a mucc ci seytaane te ëllëg ku matt sa baaraam wiccax kala ko yóbbi kooku mooy seytaane yàlla nga ko xam ba moytu ko fii xusuunukum turran min arrajimi salaasatun faltafhamu manduumi awaluha almasjidu summa saani dawaamu zikrillahi ya ixwaani saalisuha tilaawatul quraani bi tuhri maa tadaburil mawaani suñ tubaa nee na ku bëgg jox naa la ñetti aram nga ko mbàkke ban ak ban ak ban mu ne jëlal zikrullah rek seytaane daw nga ko ak ban mu ne saxwal nga ko ak ban mu ne del jàng alxuraan te di ko laabal te di ko te settantal nee na ku def yi mucc seytaane seytaane moomu ëllëg ku matt sa baa ca baaraam wi tax rek seytaane la ko yóbbee te boo jàngee ci alxuraan moom bu ñu ba foofa la muy wax yàlla mooy ñii amuñu ci man benn benn ordre ndax inna allaha waadakum waadal xaqi wa waadtukum maa moom lam nu dig alaaji lu mu lu mu leeral yàlla digoon na leen dëgg waaye mayit ma dig leen mais lim digee du ko wax kañ la koy wax ëllëg duutu am njariñ inna allaha waadakum waadul xaqi wa waadtukum lu mu ca fa axlaftukum kon nag léegi nag mu ne fala talumuuni wa luumu anfusakum bu ma kenn yedd bu ma kenn wax dara maa ngi yéen a yem koo kii nag ku am ku la ko joxoñ leeralal na ko ba leer nañ mu wóor ni fii la jëm ak yow fii la tàmbalee ak yow fa mu jëm mu yow musiba la liy ordu ci yow ca gën ci yow mooy teel ko wàcc rek ndax inna shaytaana lakum uduwun fattaxidu uduwa Cheikh Abdoulaye Mbacke nee nag ku dégg alxuraan ñu ne ko a ah Mbacke mu ne saa boo koy firi bàgg ñi baatu fa xaraf bi ñuy wax fa neen lañ ko war a dégg mooy bu kàddu kii daanu kii wax daanoo jëfal la muy sant bu lu ñu santaane bu dee lu ñu tere bàyyil ca sansa moo tax bu yàlla nee seytaane képp di seenub noonu daal ne bis tey jamono jii may wax ak yéen fattaxiidu na ngeen ko jappi jàppee adoon ma dim naa mbàkke yàlla lutax mune mu ne innama yaddu xisbahu li yakunu min asaabi sa'iri shaytané moomu nak bari na bokku gum xajul ñu xajal ko fa bam mu yàq ko ga moo bi sunu borom ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha lu mu ca teg wa aslihu zaata baynikum bayi len yàlla xel ndax ku bayi yàlla xel bayi xel ku mata bayi xel ku ko bayiwul xelit bayi ñak nga bayi xel ku mata bayi xel ndax ki ñeek ci yow di mujj ci yow ko bayi xel ku dul ka nga bayi xel matu te yàlla njëkk ci yéen huwa allazi ansha'akum te ko xamne fam door ak yow bam fay door ak yow kenn ñëwut fam jëm ak yow yaak mom kep ndax wa kulluhum ati yawmal xiyaamati farda cheikh abdoulaye mbacke bu ngi koy firi daf ne kenn ku ne ci nun ñu ne mbàkke mu ne yàlla day wéet ak yow ba nga jàpp ne yàlla bindu woon kurul yow wala ci bindee fi yow dong la soxla woon kenn ku ne ci nun te loolu yomb naa xam ndax yoon wi koy leeral mooy bàmmeel bëriwulu ko ñaar di bokk ñax di ko bokk te bu góor beeg bu jigen bee tolloo nag bu góor beeg bu jigéen bee tolloo xam naa jigéen ñi waroon nañoo dégg ni ñu jaamu yàlla ñenn ci ñi ko war wax ba mel ne góor لا يالا بي نغير جامو يالا تي ان المسلمين والمسلمات سين سين ابرغ نداو والمؤمنين والمؤمنات لو باري لا تي ليم بامي دانا لاف ني عاد الله لو مغفره واجد عظيما كون نك شيطان موم دي لا خاني سونو بوروم دي جار تي بيرك بوك غير خاني لا يالا شيطان موم ماتنا باي خيل تيل كو باي بوكا دفي ñu yëg ne ak bokk alali sunu borom la keroog ba ko yàlla bindee ne ko dama bëgg nga ñëw demal ma daaru duniya la ko ak bokk wax mooy damaa ragal a dem dama ragala dem mu ne ko ana looy ragal ci dem gi mu ne ma dog rek laa laa ragal moo tax bëgguma dem sunu boroom ne ko ala yekk fi yekk xanaa doy na la su ma la yóbboo ci daaru duniya muy àdduna mu ne ah mu ne ko man yàlla may taxaw di la superviser di la xool guddi ak bëccëg su boobaa day ku la dog danaa ko dog te kenn du ci man dara ku la jokk ma jokk te kenn du ci man dara xanaa lii doy na la ah loolu kay boo ma ko garanti le ma wàcc ak bokk soog a wàcc kon moom mi ngi ci damaanullahi yàllaa ko garanti mu soog a wàcc kon aw nit defuñu lu gën dajee ci seenu bokk ngir defal seenu bokk te léeg-léeg nag ñu xeeb loo xam ne lu ëpp a xeeb la ndax waxuma sax yi ñuy defar waa Ngembe yeeg waa Gaye di ci mos waaye xaraf yi ñu fiy jàng muy alxuraanul karim xanaa xam nga ne suñ tubaa nee na benn xarafu alxuraan moo gën njool naa kàkku xeetam benn xaraf nee na su doon ne damay wax ne nañ fay sëriñ daara ak pay damay wax ne kum jàngal baa na ko jox junni kum jàngal baa jox ko junni kum jàngal taa jox ko junni kum jàngal saa jox ko junni li ko doon sëriñ daara yi riche de أن يهدى إليه بكل حرف ألف درهم بتعليم كل حرف ألف درهم moo tax Sëñ Tuubaa waxoon ne daara moomu jóge ci alxuraan wala alxuraan mu jóge ci daara na ngeen ko fonk ndax lu baax mooma waaw Mbàkke lu tax nga ne alxuraan benn xaraf moo gën xeet Muhammad booy boo bind ko de ndax wax ji dafa rëy mu ne wa xarfun waaxidun min alxuraani nga ne ko ah Mbàkke mu ne afdalu min nabiyina al adnaani benn haraf ci alxuraan moo gën njool màkka ak xeetam lo nag lu yàlla bind njool màkka tax moo tax sëriñ Sam bañ ko laajee ne ko ndax la daf aji bind la yàlla moo melowoo alxuraanul karim moo tax lu la alxuraan indi rek jàppal loolu la tere yi bayil. Kim mu ko wàccee ci moom it nga xam ne ci weer wii la ko copte woon nganam gu ga ko ko jox comme kon wax une pierre deux coups benn xeer jam na ñaari picc ci ndaje mi ci boppam importance bi mu am ak li ciy xéewal waaye fi ñu ko defee la mooy rajab inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara fi kitabillahi yawma xalaqa samawati wal ard lu mu ca minha arba'atul hurum zalika diinul xayim sunu borom nee na maa bind man yàlla keroog ba mu bind asamaan ak suuf ci ne weer yi moom du romb fukk ak ñaar boobu dogal wéy na kenn mun cee dolli benn weer waaye nee na tànn naa ci ñeent yoo xam ne xorom la mu tànn naa ca biir ñeent yooye benn boo xam ne dafa feddi géewu ndax al asurul xurum ñeent la yett ya sard benn ba fard ñett ya dafa taqaloo mooy zul xanda dul xijja mu xaram jar rajab ñëw nii yonent yàlla muhammad alayhi salaam nee na rajab mooy weeru yàlla wi mu tànnal boppam la woo xam ne yunti yàlla muhammad wax na ci yu baree bari doon dina taxu ñoo jóg talxiis la waaye dama la ci joxe rek benn njariñ wala ñaar mooy diggante tisbaar ak tàkkusaan ci rajab nga jël sa kurus ne astaghfirullah aladim alladi la ilaha illa huwa alxayu alxayumu wa atubu ilayhi tawbata abdin zalimin laa yam na fii nafan wala dara wala xeer wala wala mawt wala nusura yàlla ne malaaka yi ana ngeen ñu naa ah, mu ne tànnal leen ma cib nañ dem fa bàkkaari diw nekk nañ wut ay jum lakkal ma ay bàkkaaram bu mu dese benn bàkkaar bis nekkee tey pare ngeen ñu ne waaw mu ne bàkkaaram yëpp soppi leen mu ay yiw bis nekkee tey wax ci fan ci fan tax borom kan waaye yow sama ngërëm li gën a màgg nga ko te mag ñi neeñu moo dàq aljanna fuf ndax bari na ko dem aljana te amul ngërëmal yàlla waaye bala kenn am ngërëmal yàlla daa fekk nga dem aljana moo mag ni Cheikh Ibra da ko dan wax keroog ba Serigne Touba rëddi rëdd wa ni rëdd wi ku ma ci fek fekk ma ci biir ak su aljanna daawul tudd sawara moom Serigne Touba ndax koo xam ne boo di wax yàlla dëggal Serigne Touba bu di wax yàlla dëggal ñi la remplacer ñëpp a taxaw war jëm te ku sam xëy rafetut na nga gën góorgóorlu ci sa kanta borom 50 ans yoo dab ne ko sam xëy jeex borom 50 ans xëyam jeex ndax a'maru ummati min bayni sabain wa samain wa ko wax sama xeet wi seeni fan daa gàtt ndax ñëpp li ñuy dund mooy juróom-ñaar fukk juróom-ñett fukkat juróom-ñeent ba téeméer ku ci am téeméer guddi fan ngay dégg ñe leen jiitoon dund ñetti téeméeri at yu tegal yeneen xeet kon xeet yu ñu teel Muhammad ku ci bokk bu amee cinquante ans sam xëy jeex na góorgóorlu ci sa ngont ndax amaaru ummati min bayni waaye koo xam ne kon ñi nga remplacé ñëpp gisatoo ci kenn te ñi lay remplacé ñëpp a ngi taxaw war ngaa xam ne jeexal nga ku jeexal nag aj say kook te waajal barab bële ndax jëmuwaay la boo xam ne ñëpp ay ñëw way yooyu may wax Maam Maodo dane ndax jàpp ngeen ne jamono man naa laab gannaaw bu baaxoñ bi naawee tortoor bi remplacé ko ñu ko Maodo luy tortoor ak na baaxoñ ne borom karam gu ñuul laa tuddee baaxoñ bi borom karaw gu weex gi man nag amaguma sikkim bu weex waaye kooku la tuddee tortoor bi Mune ne baaxoñ bi bu naawee ba léppam jeex tortoor bi remplacé ko ndax dundu mën a neex ñu ko déedéet ndax mënatoo yëy lu manku moom lu makku loo daan lekk genn wàllam ngay lekk loo daan dox kaaru kaaru kaar too koo dox boo daan daw 7 kilomètres léegi mënoo daw ñaar boo daan lekk genn wàll liibar mënatoo lekk kaaju kaaru kaaru genn wàll liibar kon war ngaa yëg ne yaa ngi wàññeeku te nag kuy wàññeeku te du ko yëg la ko jural mooy bi nga yokk yëgoo ko waaye ku yokk yëg boo wàññee koo yëg yokk yëg boo wàññi yëg kon nag ak bokk lu mat a bàyyi xel la xam naa tomb bi ñuy daaneele mooy yar ak teggin ku àgg ci nga àgg ku ñàkk àgg moo la te àgg mag ñi nag ñoom gàcce ngalaama ndax baay baay la woon soxna soxna la woon rakk-rakk la woon mag-mag la woon ku nekk la yelloon ci moom lañ ko joxoon adduna njag bu ñu demee nag ba ku nekk dem ak boppam ku ne di xalaat xalaati boppam ku ne sam xel doy la ku ne dox ci sa plaisiru bopp kenn dootu am kilifa musiba xew xewul te Sëñ Tuubaa nee na mënta ñàkk am ñu ne mu ne kii ko am te fonkut ko na yëg ne bi ko bàyyee am na ku ko remplacé seytaane la tudd kullu man faqada cheykhan murshida fa cheykhuhu cheytaanu xaysu qasada ku amul ku lay wax defal nga def mu ne bàyyil nga bàyyi am nga ko yaa ko yëgut ngi gi ca kanam yor sab gidd moo lay sant moo lay tere te bàyyi mbay bàyyi jaxate wala sëñ Moussa Ka ku mu ci doon ala li xaal wax na dëgg kilifaay li am solo nga ne ko am mbàkki wala jax soo ko amee am nga solo nga tax walla day wax borom ku du lakk ma ne su ko jëfandikoo maa ci dolli loolu su ko jëfandikoo ku bàyyi kuddu fële la kuddu waroon a def nga def nga jëfloo ko baaraam baaraam lakk loolu mooy lan mooy ku am kilifa yëgaloo ko tàgguwuloo ko dugg ci loo xam ne bu doon léegi rek. kon nag kilifa mënta ñàkk kilifa googu nag mooy jiite yar ci biir kër gi te bu kër gi baaxee bu nekk bu nekk baaxee ëtt bi da ciy teg du bañ ëtt bi mi baax su baax ba ëtt mi baaxee tundu yu baax su tund yu baaxee réew mi baax su tundu yu baaxee réew mi baax su réew mi baaxee rek lépp jàpp ndax innamal umamul axlaaqu maa baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum asu kan gis ñu naan dafa baax la leen baaxal jukko rek la léeg-léeg ma ne Cheikhul Khadim fii la fekk Mbàkke avant muy ñëw liñ sukkal Mbàkke bëriwut waaye ci gannaawam Mbàkke Mbàkke bu ne dañ lay sukkal ma ne kon la tax ñuy sukkal Sëñ tubaa di sukkal ko sant Mbàkke du baagee keef gi ndax baaga keef mooy bukki baa keef mooy bukki mooy kebe ñaar fukk ak ñaar rek la. soo bindee mbàkke boo comptee dooro mu ñaar fukk ak ñaar boo bu bindee bukki boo comptee dooro mu ñaar fukk ak ñaar te bunte bukkee mbàkke sori yoona kon sëriñ bi li mu def ci biir mbàkke ba tax ñuy raamal mbàkke du jëmmi boppam waaye jukko la jukko la leen ngeen moo tax ñu topp dama ko joxe nag comme exemple waaye loolu dafa walaabal pour ñëpp nag dafa walaabal pour ñëpp ñoo xam ne jukko mooy li yàlla yontu yàlla Muhammad jële woon aw tagg ci yàlla te damay wax ne bi yalla tagg njool màkk ci wayna kala ala xuluqin xuraysa nga fa te fal urbu xayru unasin summa xayruhumu xuraysun wa huwa fihim xayru xayrihimi ha xayru ca miimi ya demal ci mimi alaaj Malik nee na bi yonent yàlla Muhammad di feñ giiru arab ñoo gën ci giir yi gën ci Muhammad gën ci seen biir giir waye nak jukku la gëne ndax min kulli wasfin hamidin haada afala tafdili rajaul baraya yowma muzdahami waaw tabarakallah waaye laa ciy teg de min kulli wasfin hamidin la Maodo wax wépp jukko wu ñuy taggee waaju baax nga ne ko ah mu ne Muhammadu Rasulullah jël première haada afala tafdil rajaul baraya yowma muzdaham daal ciy teg nag wayam ya man lam yakun yalqahu gadan yanan wajalan hada alkathiru ata lil jabri yàllaahu kon nak la tahrimani ilahi ilaahil yow ru'yatahu lutax mu am garat bobu ndax yàlla da xol mom nday ak bay dedet yàlla xoolul ci mom rasulaay askan jukka la xool ci mom def ko ci mom ne ko nak mom la la yónnee wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la la khuluqin azimin suñ tuba tëgg ko xaraf bu nek ma ci fukki way ak ñaar wasiqtu bi rabbil arsi sul judi wal afi ma al mustawa la musun safi Hmm? jukko yooyu faw ñu dellu si ko pour jamono jag te mag ñi lañ ci waroon def lépp def nañ ko ci wax nag ne bi ci gën a sensible nag mooy jomb bu jomb jeexee jom jeex ne day am jom dama rusa def nangam diw sangam di ko dégg dana tax nit a baax de dama rusa wax nangam diw sangam di ko dégg dana tax nit a baax waaye bu dee sa nafsu lu mu la digal nga def te in inna sa la amaratum bi suu illa man rahima bii sa bànneexu bakkan fu mu la fekk yóbbu la fa sa bëgg-bëggu bopp fu mu la fekk yóbbu la fa ah ci rus rek moo tax faw nag ngay jomb ci wax di jomb ci jëf am yaatu gu tol ne yéene ji nga yéene sa bopp nga yéene ko julit ñi ndax léeg-léeg ma ne àndaara ngi joo xam ne ñu bari manquil nañ ko buñ ko na nattee duñ feesle te njol màkk nee na ku ko feesliwul doob jullit hadis boobu moom la xaadiima jaxate kala dool binduloo Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu boobu gone la te mu raamoon ca bay xaadi waxoon maam Mor ne ko neel xaadi na ma may ma dem ci àll bi dagg bantum njëmb te fekk jubluwu ca loola leneen la ci juumay ak sàmm laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi bari na kook boo la waxee dëgg rek lamu mu yéene boppam ak la mu komi nit ñi comme yàlla ak yéeli comme yàlla ak yéeli pour nga doon jullit nag xàqan li nga yéene sa bopp moom nga yéene ñeneen ñi ndax laa yuuminu xarfut nafiin la du gëm ci yéen ngëmu kenn ci yéen du mat ñu peese ko mu mat la mu lu dul ne la mbëggal boppam la bëggal moroomam su loolu amoon xaste jeex ñu si bokk bokk gi ولا جوكوي رفري نخ الاخلاق الحميده هي الذي يعز به من عز ويذل به من ذل جوكو رك تي لا بن ديغني جوني نخ خيت ييب ورال فاسك مبامك غليمك بيك ليب امو تي بن بو خامني بن با گن جوني با امول تي ادونا وين فاس مونتا گن جوني فاس اك نو مانامل مين خار مونتا گن جوني خار اك نو مانامل waaye benn nit dana gën junni nit jukkoo tax benn nit dana gën junniy nit rubba rajulin xiimatan ka alfi wa rubba alfin xiimatan ka uffi la bàyyi Moussa Ka wax yàlla bari na kenn kook junni lay wecc waaye bari na junni boo xam ne wecciwul sax kenn ndax tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta jukko ju ñaaw koy def ci nit mbooloo mu ànd te bu ñaar ne calet ñu jëw ko jigéen ñi bu ñuy marché bu ñett àndee bu kenn ki tuur ndox de bu tuuree ndox ju jëw ko moo gis nga ko tiitaram bi legetam gi dara nekku ci benn nawee la jën ak benn karoot lu sa yoon ci kaw nawee toog karoot sukkuloo ci njël boo ci sukkul bul bul ko xeebal borom jukko yooyu te moo di ab yar subaa woon ma sàmba mu ne ko mbàkk mu ne ko lëfi ngi ci kër gi mu ne ko a ah, mbàkk mu ne ko ku ko yóbbu yóbbu nga lépp ku ko fi bàyyi yóbbaale woo dara mu ne ko mbàkke ana loolu mu ne ab yar ak i teggin Baye Mbaye Jaxate nee na boo ko amee gën nga ñëpp soo ko ñàkkee bukkee la gën bukki ku amub yar ndax yëpp lu ne mën naa ànd ak toroxte ba mu yar gis ngeen ba tàyyi borom alal yuñ boolee alalam Toskarel. borom teraanga ju nekk toroxal nañ ko mook teraanga ja su fekkee yar ñëwut ak ak teggin waaye nañu toroxal diw parce que daa yaru <laughs> déedéet moo tax bàyyi mbay jaxane ab yaray tax ñu teggee nit ca suuf yóbbu ca kaw di kaw kawal ñàkkub yaray tax ñu teggee nit kau, kaw wàccee ca suuf di ko caw boo amee yar am nga lépp fa am genn góor gu dafa dégg salaatu ala nabi dafa baax Mujil mu jël ca juróom-ñaari téeméer ak nangam yu tegal di ko def di ko def ba fëgg xadratul quds ñu ne ko ana mu ne mën a diw ñu ne ko doxal amooy teggin dellul doxal amooy teggin ndax bi ngay ñëw amoo indaale woon mu ñëw ci sëriñam muy almursi mu jox ko juróom-ñaar fukk ci salatu ala nabi mu wérdi ko ñetti at yéeg ca xadra ñu ne ko ana kooku mu ne man a doon nga almursi maa ñëwoon di fëgg ñu ne ko aksi am ngay teggin am nga kilifa moo tax suñ tubaa nee na lii tax dem aljanna di tax a sawara di tax a jege di jege yàlla jege yërmande yàlla mooy ay teggin ku ko ñàkk ñàkk nga yooya saa boo ñàkkee teggin wala ayaasu billah sëñ tubaa dane boobu yar jógee teraa nga ne ko nan di teru. bu ñàkk teggin jógee xamadi wala toskare mooy ak caay-caay ne ko ma andela la sawara teeru moo tax aljana bi yara fa nit sawara ñàkk bi yara fa yóbbu nit waaw ba ba mu lay wax ay teggin ci importance am waaye dafa gudd waaye mel la ci ñaar rek dane du iblis ngi jaamoo jaamu bay bëgga a dee te néew yi teggin tax iblis a xëy daanu yunt eh, dañoo wax ne foo teg tànk jaan mattu la jiit fettu la wala nga sujjóot fa jaan mattu la jiit fettu la iblis sujjóotal na fa yàlla ana sujjóotam ya ñàkkub teggin ma ko xañ ndax ba yàlla ne usjudu li aadama fa sajada al malaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba wastakbara wa kaana min al kafirina moo tax mu ne du iblisa ngi jaamoo jaamoo ba bëgg a dee weyoo mooy xeebal sa bopp te fonk sa sëriñ ca dawa daw waaye dafa gudd waaye ala kulli xaalin njeexital ga mooy iblis jaamoo na yàlla fu ne jaamoo na yàlla nu ne waaye ñàkk ay teggin ci ki war a santaane santaane mu làkk moo tax mu am li dal dal ko su jëfoon ndigal la rek li ko doon mu des fendi desoon waaye jëfi ndigal la moo kon munu noo dox mukk am liñ bëgg lu dul am ab yar ak i teggin bàyyi danaan wax ci kër taaw nangu rakki taaw nangu aawa nangu ñaareel nangu nangu kenn amul xalaat waaw ñuy dox ngoro xam nañ ko ci bu njëkk ak léegi léegi demal ci jigéen ñi rek waaye ci bu njëkk demal bu togg saane ma indi lépp nga daan dégg wala togg ci guddi gi yaayam ne diw jox diw de jur sa doom ju jigéen takkusaan nga muur woo yaayam ni ko diw laa koy jox bis na ke tey te teg benn baat ma demal ci jigéen ña ñu rëddal la rëdd rëdd ba bari nga fara far la nga ca mën a far la nga ca mën a far ñu topp la ko muy jur coow lu ne cob bay parce que baat amatut moo bi sëñ Tuubaa di wax murit bi dëggal te mën a jariñu ci sëriñam da caa dafa indi ñeenti mbir أما صفات الصادق المريد باختصار أربعة نظمتها خوف اختيار الصدق في محبة الشيء waaye dajaa bokk nag talabul ixtiyaar ak salbul ixtiyaar yow mënuloo sa bopp dara nga ñëw ci nga ki nga jàpp ne moo la man la moo xam yoon wi nga jox ko sa bopp pare am looy bëgg ci sa bopp Cheikh Rafal daf ne ku sukk cib sëriñ na ko doy nga ma àdduna ak àllaaxira soo dama bëgg ne na war nga dafa ba ne la kaay dellu rek waaw doo ne mukk damaa bëgg a ñibbi da ngay toog bu ne kaay dellu waaw moo tax Cheikh Moudou Aminta Fall bu Serigne Saliou Massane wootee tooli xel koom buy dem gone yaag lal yaag cin yaag lépp la yóbbu xorom ak lépp la yóbbu ndax kañ lay ñëwaat mooy bëgg sëñ bi tool yi jeex na. moo tax daf ne sukk cib sëriñ ne ko doy nga ma àdduna àllaaxira mu ne la bu ma la nga def su ma teree nga bàyyi nee na boo ca dégg ne ko ñaanal ma ñibbi na war nga da ngay toog bu ne la kaay ko li ñu xamoon ca njëkk. mag ñi daan ko dund mooy kër gu nekk kilifa ga moo yoroon baat ba mooy doxal booba nag yii xew agut ndax yat sëñ Tuubaa da ko fee bàyyi woon ne bu ngeen demee ba gis ko jamono yàqu na ñu ne ko mbàkke ban nag ban mu ne bu ngeen demee ba déggatu leen ren a tane daaw bareetul de ren a tane daaw ñii bay xam nañ ko su ngeen demee ba gisatu leen doom ju gën baayam yombatul su ngeen demee ba gis rakk ju ngeen magam bu boobaa na ngeen yëg na jamono yàqu na boobaa ku waaj waaj jot na ku waajul waaj jot na ñu ne ko mbakke nu ñuy waaje mu ne naa ma sàmba xamewu leen nu ñuy waaje mu ne ko déet mbàkke ñu ngiy waaj de waaye waajtaay yu ñuy waaj mooy léeg-léeg kenn ci nun xëy jàpp ne du yendu léeg-léeg ñu dugg weer defe ne duñ ko jeexal mu ne yee dee deen dee dana leen bett waajal leen dee comme ni ma koy waajalee su ngeen ko mu mbàkke noo koy waajale mu ne xefa kaw bu jógee bari ko xefa suuta taatan ma jàpp ne dig bi jor na waaye déglul li am importance mooy li may bëgg a wax Sëñ Tuubaa def ne looloo tax man Ahmadu bu xefu kaw jógee bala ko xefu suufa taatan danaa fa jéem a jëfal yàlla lu mën a jural ngërëm ngir yëg naa ne wa argabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaati walaw suwaatan faqat li amalu saalihatan tanfauhum in xafalu moo tax ku jàpp ne mën ngaa dem malgré sa wuti malgré sa alal malgré sa daraja malgré sa askan malgré lu mu doon su jikko ju rafet ñëwul doo dem jikko ju rafet rek mooy tax nit a dem ñàkk jikko ju rafet mooy tax nit a suux tund woo ma dem wala dëkk boo ma dem wala kër goo masa sa dem ni ma ko waxee léegi benn baata fay am kenn koy yor léegi nag ku nekk baatam bu doom ji amee baat taw bi am baat rakkam am baat jabar ji am baat borom kër gi am baat kër gi amul baat kër gi amul baat te dañ daan wax ne boroom kër kët li mu am ci këram mooy peesaankat bi am ci nag wi rek mbaa ci xar mi mooy baat bi rek ndax soo ko xañee xañ nga lépp soo ko joxee jox nga ko lépp faw ñu delloo si baat benn toppante faw mu ñëw nit ñi dañoo bañ ñett te ci la adduna di baaxe dangay ngay nangu ku a gën nangu kul a jiite da ngay nangu ku a gën nangu ku la jiite boo nangul ku la gën doo gën kenn sëñ Modou Aminta Fall da daan wax ne waaye rikk waaye na ngeen toppe man Fall lu mu am toppee ma ko may te nee ku toppewul doo for dara ku toppewul doo dara ne man Fall toppee ma ko te moom lépp la am nag toppante boobu faw mu ñëw sunu kilifa yu baax yi yàlla yàlla doole leen tawféex li ñu rawee teñ wañ koo roy ci ñoom mooy fonk kilifa sëriñ bi day wax ne nasaraan yi damaa jaxasoog ñoom waaye na ngeen jël ci ñoom ñaari mbir ñu ne ko mbàkke ban ak ban mu ne teel a yow roy leen ko ci nasaraan bi ak fonk kilifa quartier bi lu mu bari bari kenn du yëkkatig liit mbaa baat lu dul ne chef bi daa ñëw chef bi ñëpp a def kell rek dëgg mooy waaw kon yar ak teggin faw ñu delleesu ko pour société bi baax ni muy amee nag mooy kenn ku nekk ka ko féete kaw mu jox ko cër ba mu ko war a jox ndax Sëñ Tuubaa ba mu wajaal kabirana yu'inu wajaal kabir wajaal sax am na wayu ko jiitu de wajaal xulubana ala tawaadudi بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاور دبج وجل كبيرنا يؤخر الصغير وجل صغيرنا وجل صغيرنا يؤخر الكبير اوكي سنت با نينا واخي ماغني بلا جاخله وخال عبد اللطيف ولا عبد اللطيف وخون نين كو مباكي عبد اللطيف لوم واخ موني كلام الاولياء لست افهم لانني انا انا وهم هم انا اغوما فاني واخي جيغي وما فا سخاندوما فا واي نيما لما تي جانغ رك لا تي فيري pour wax le ne am ngërëmal mag ñi mooy am ngërëmal yàlla Baye Moussa Ka dane buur yàlla lar ba mu gërëm lar mooy jaam yéen ñu xamut lar ba mu gërëm nga ne ko ah ka mu ne loo ko defal am ca ngërëm boo ko defee boo ko joxee benn dërëm mu soppi la ko ay junniy rong pour wan la ne la Sénégal li ñu am lu ñu war a xam la lu ñu war a téye la Cheikh Abdoul Aziz da baax dafa am ñaar ci ay xaleem yu mu yabal ñuy jàngi keer mu leen ah dem leen jàngi de waaye bu leen foroy de ndax li ma toroy mi ngi fii yal yàlla fayal na ko ma baax mu dem leen jàngi xam-xam noo ko jànge baax waaye bu leen fa dara ndax lan li ma toroy mi ngi fii mag ñi ñu dara luy joxe ngërëmal yàlla mag ñi jëf nañ ko yow kay nga xam nga ñàkk xam sëñ Mbay Saar daa xëtt bind daa ñàkk a jàng bindu tayam ngir jëfal kilifaam ndigalam bam demee ba ñëw mu seddal ko way ne ko jëzaaka yàlla na la fay yaa ibrahu yow ibrahima mii mawlaaka sa boor bi la bind te bu lay fay it yàlla na la fay nag xayral jëzaa yi ngën ji fay waaye nag wa mun naa daareke aw laaka li nga bëgg adduna ak àllaaxira yàlla yàlla jox la ko daldi ne ko faalam na nga yëg faalam na nga xam bi ànd naka ci ne yow mi ma doxal sama yónent bii indi fii ci man Ahmadou Bamba zuuri dan làq nga sama ngërëm mu mel ne sëñ Bay Saar da ko waa Mbàkke sa ngërëm ku ko làq lu mu koy jural mu ne ko wa zaaka loolu nag làq ngërëmal ku ma ta làq ngërëm rib xu ko moo tax ngaraw fii dunyaa ka adduna ji waa faaga àllaaxira yow ma gën gën jëm kon mag ñi làq seen ngërëm ñi ko def ñëpp raw nañ te gis nañ ci mbindum sëriñ bi muy wax ne li muy def ci nit ñu topp ko bu ko defoon ci garab nit ñi nekk fa tudduñu fa jóg ngar ngërëmal yàlla lay booleeg nit ngërëmal yàlla nag aw ñaas la raxas dindiwu ko faxas dindiwu ko tey deret lay topp nag ngërëmal yàlla deral lay topp ak ku la mën a gërëm fu mën a bokk bu dee ngërëmal yàlla la la ngërëm ci ngërëmal yàlla la gërëm aw ñaas la munoo ko ragg bam dañ munoo ko bamb bam dañ waaye xoolal li mu jeexale way mooy fa dum fa dum na nga sax xanaa ki ne ci mbir la ñuy wax nga sax ci nekk ci néewul lañ la koy digal sëñ Tuubaa néewul Ibrahima Sall dafa dëgg def na ko saxal ci dëgg kon ma nga ca woon fa dum ala sidqi waaye wal ixlaasi looy jëf te yàlla na yàlla tax mi ngi koy wan ne bi ngay dem di jox ci yónnent bi yàlla rek sax nga defal ma ko du xaalis du leneen fi sirri wal jëhri bu nit ñi tegee bët na yàlla tax buñ tegul bët na yàlla tax boo wéetee na yàlla tax bu wét li ko na yàlla tax buñ la taggee na yàlla tax buñ la xarebee na yàlla tax lépp rek na yàlla tax mbàkki lu mu ci jël mu ne ko kayitan mu ma zaayaak saa boo ko defee yamale taggu nit ñi ak seen xarab say daraja day yéeg fa yàlla nit fa nit ñi nag nekk nit fa yàllaa ko gën fuufu nag te maam Cheikh Kabir dafa waxoon ne ma xaafatu zammi wa xubbul matxi yuujibaan li sax ci kulla xubxi nee na koo gis amul la mu bëgg la ko ko teg muy bëgg nit ñu tagg ko mbaa bañ koo mere ku bañ nit ñi mere la doo dem maam Cheikh nee na fexe leen ba dof maam Fall lu tax mu ne ku dofut du àggoo ku àgg rek dof ndax nee na ji loolu la Ibra Fall wasin na biig dégg naa ko te dañoo xam ne góor du ko def <laughs> lu dul Ibra Fall wasin na biig nee na naa ko ci Bàmba ji waaye keroog ba mu dofee nag lay soog a kon li nu serigne bi defal wala li nu sunu serigne ci defal ci baxu yàlla ak top guñ tok njool mak ndax dama wax ne tariikha yi bari na waye turuquhum shatta wa maaniha wahidun wal kullu ila dalika nur yashir damay faral di wax ne ben poste courant ci dëkk ñi fété penku tal ñi fété sowwu tal wa gànnaar tar wa bawal tar su wa penku defé ba jàpp ne ñoo gën le wa gànnaar sawara ci courant bi dof lañ ben poste courant rek am cheikhul xadim alhaaji malik cheikh abdoulaye ñas góor yàlla yooyu njol màkka lañ gisoon moom lañ xamoon moom lañ làmboon moom lañ daj liñ am ci moom lañ ko amee kon nag pour ñu topp leen ñun dañu rafetal bokk gi nañu rafetal soo mi duggee ko jabi maam Maram maam maami Sëriñ tuba mi jur Balla Aysa mu jur maam maam Maram mi jur Balla Aysa mu jur maam mu arda seli mu jur Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul maam ma aram moomu moo jur Farimata mu jur Ceerno mu jur Mati Joose mu jur maam Ousmane maam Ousmane jël Alaaji Malik ñaar ñooñu boo leen bëgg a tàqale foo jëm yow yaay seytaane Cheikh Abdoulaye Mbacké dane ñu bokk ndey ak baay nga ne kenn ki nooxóor la kii nga ne dëmm la kii nga ne du xar tàkkusaan nee na yow moom yaay bi seytaane yow la kenn xamut loo doon tariixa du armu bu ñuy xeexe murit bi baax day nangul ñëpp seenu baax te nangu fa ko yàlla féetale tijaan bi baax day nangu ñëpp seenu baax te nangu fa ko yàlla féetale ndax buntu kër yaa ngi nii ci ñaxate du genn kër ñëpp xajuñu ci genn kër su ngeen bëggee dëkk ci génn kër waa ñaxate am problème kër day génn ci kër kër bàyyi nga ne di këru cosaan waaye damay tabax fee kee tabax fee kee tabax waa ndax ay doomi baay yu ami kër tee nañu ñu déggoo diine yàlla ji xool asamaan jërul boo xant ah? Ceerno Farimata mii ma la waxoon mu jur maam xëri ñang maam xëri Mbàkke mu jur ngañ xëri Mbàkke moo jur ñang yaayu Abdul Aziz Dabah, te doy na julik jullik gima Abdul maam Abdou defoon ak si Abdou Xaadir ku bëgg jub wala nga bëgg baax wala leeru yàlla ñor la wala juboo ñor la wala nekk benn julli di ñor la dellul ca kaset boobee rek nga ne la maam Alaaji Malick joxoon kaamil baag woyemee Serigne Touba ak la mu ko tontu woon doy na sëkk ko di murid mbaa nga dib tijaan waaw hadiyati mujubu hal tilaabu mahabbati ya ayyuhal hubaabu jox naa la addiya ngir mbokk gi waaye ngir yëg ne lii lan mbokk te ma Abdou Aziz keroog bi ko mbokk may ne ko dégg naa Cheikh Abdou Khadir da jox xaalis mu ne ko la ma jox a gën xaalis kaamil la ma jox kaamil kon nag bokk googu nu yàlla boole nañu ko fonk nañu ko jàpp nañu ko waggar nañu ko téye mooy sunu ndam tey mooy sunu ndam ëllëg leneen lu def nangu ci mbooy gi kunu ibadallahi ixwana al muslimu axil muslim laa yazlimuhu wala yaxqiruhu julit bu nekk sa mbokk mooy julit innamal muminuun ixwatun siblaan mbàkke nee ne kon day góorgóor leen ci ba xaraf bi ci topp ñu ne ko xaraf ban mu ne fa jullit ñee bokk liñ bokk kon nag góorgóor leen ci seenu mbokk ngeen defar ko lii daal mooy kàddu yi ñu doon wàcce pour wan ne réew mi mel ni réew rekk la te li yàlla gën a bëgg ci nun mooy bennoo ndax sunu bennoo am nañ arme sunu ko defut sunu tas na ndax ma Abdou nee na laaye bii di wala tanaza'u fa tafsalu wa tazhaba rihukum na ngeen koy jàngate di ko jàngale mooy bu leen xëccoo bu amee rek noonoo am su noonoo amoo yoccax am yi jamanu jaar jamono di indi bu ñëwee dañ caa toll lañ ca def lañ ca war a def bu jàllee nañu apprécier ña yàlla teg ci kanam te ànd ak ñoom liggéey ña ñàkk nañu wutiwaat te xam ren nawet yemul ci ren bu nawet demoon ci benn at góor yëpp morom ja ay wateeg ay yu kenn xamut lu munta ñàkk la cim réew waaye bu amee ñu jitu nañ jitu parce que réew mee leen ñor bu dee réew mee leen ñor ñañ ko ñu xëccoon nañ bàyyi xëccoo te xëccoo lana des ànd liggéey mi ñu soppante bëggante ndax nag yadullaahi ma aljamaa yàlla kat loxoom ci biir mbooloo la koy def kenn musa gis til dugg ci biir gétt di fàdd baa boog bëriwut day leeroo gétt gi kay waaye xar mu dugg ci mbooy gi rek mu yenu la yóbbu benn loxo nag du tàccu muhallab ibnu abi sufra ba bokk ci taabii taabiin yi bi muy faatu dafa am ñeenti waxambaane yu bokk yu bokkul yu bàkku baay te bokkuñu day maanaam ñeenti taw ci ñeenti néeg mu dajale leen ñoom ñëpp ku nekk mu jël sa xeej takk ko wenn say jox taaw bi taw bi taaw ku taawam bi ne ko dammal mënut a mënu ko damm taaw ñaareel bu jox ne ko dammal mu tëkku taaw ñetteel bi taw ñeente bi mu mu tas say wa ku ne mu jox la xeej na la ku nekk damm amoo benn problème ma leen lu ngeen ci dégg ñu ne ko dara mu ne ah kon déggu leen dara damaa bëgg wax ne maa ngi dem maa ngi leen fii ba su ngeen àndee kenn du leen mënal dara su ngeen tàqale ñu tasaare leen jëf yéen liñ bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngeen baal ñu àq waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ousmane yàlla na suñu borom yokk xam-xam bi wéral cër yi dëgëral taxawaay bi waaye defal leen kattan ak wërsëg wu yaatu wa ngeen mën a liggéeyalee sëriñ bi mën koo liggéeyalee diiney lislaam ñu kontaan lool ci waxtaan wi tegu na ci xam-xam ànd na ak fasaaxa ànd na ak pédagogie yàlla nañu suñu borom defal ak dégg ak topp suñu borom teg loxoom ci njaboot gi teg loxoom ci réew mi mbooleem lu ñu fi jàmm lu ñu fi jàng ci alquranul karim suñu borom dotti ko muy ay xéewal ci réew mi def ko naataange def ko xéewal def ko ak yàgg ak yokk ak wér yàlla na suñu borom faj aajo yépp lépp lu fi waay indi ci yitte ak aajo yàlla na ko suñu borom euh, faj lépp lu fi waay indi ci tawat yàlla na ko suñu borom teggi ñu ngi euh, sant bu baax a baax a baax ci waxtaan te jéggaluwaat bu baax a baax jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ ji bi ñoo ngi lay nuyu tamit di rafetlu sa taxawaay et surtout sa teewaay parce que saa yu ñu soxlaa rek nga ñëw bàyyi sa yitte yëpp ñëw ndaje njaxate wala beneen xew-xew bu fi mënti am rek di nga ñëw teewe ko waaw ndaje tey bi moom mooy ndaje bi ñuy def at mu nekk et solos ndaje ñëpp xam nañ ko moom mooy jéem a dajale njaboot gi. ñi xamante woon xamante ñi xamante ba pare feddali seen euh, xamante ak seen euh, seen cox seen cofeel waaw donc jaar na ci yoon ndax euh, ndaje boo gis rek dafa am lu ñu si war a jàngat te li ñu si war a jàngat dañ ko jaarale ci conférencier bi conférencier bi waxtaan waxtaan bu am solo ci lan mooy lan mooy solos jaboot lan mooy soxna solos famille ak lan mooy solo njàng ak njàngale donc loolu daal vraiment je pense que ñu fi nekkoon yëpp am bari lu ñu si jàng te loolu donc moom mooy euh, solo ndaje bi ñuy organiser waaw donc dañ koy jéem def at mu nekk jéem a euh, dajale nit ñi dajale ñi nekk si tund bi yëpp ndax tund bi yëpp boo gis dëkk bu nekk aussi am nga sa ndaje te euh, loolu dafay dafay permettre ñi dëkk yëpp di dajaloo di gisante di saafonte xamante bi di gën a law jàppalante bi aussi di gën a law ñu ngi rafetlu vraiment ni mu ni mu demee tey ak nit ñi fi teewoon ñëpp euh, yaakaar ne dëwoon danañ ko ëpp dëwoon xale yi danañ gën a bari dëwoon xale yi danañ gën a bari bu kenn manqué fekk dëwoon incha allah loolu daal moom la ñu moom la ñu ñaan. Euh, njaxate comme ni ngeen ko gisee euh, boo koy méngalee ak njaxate bi amoon at yii passé soppeeku na. njaxate boo fi duggee génn seen tabax yi commencé nañoo bari njaxate boo fi ñëw léegi du gannuus ngay si gannus ngay jaar di di càng di paan ñu lay puus ba nga yegg si fi nekk nii da ngay du jël benn ran ran bu lay jëlee kër daam ba si diggu njaxatu ba si diggu penc bi euh, bu ñu sañoon loolu day wéet day day day dana jëm kanam ndax euh, dëkk boo gis rek bu ñu sañoon mu sukkandiku si infrastructure infrastructure maanaam mooy rang-rang bi ñu am ni baax na mais bu ñu ko mënoon a ñuulal dana gën a baax donc loolu danañ si dox euh, leneen loo xam ne aussi ñu ngi ci dox ay jéego mooy ndox mi ndax suñu forage bi maanaam am na ndox mu doy waaye ndox mi dafa xaw dafa xaw a saf xaram ba kenn mënu fee bay bayum bër bayum dër ndox moom nag bu ñu sañoon jàppale ñu pour ñu génn xewlam si ndax daanaka sax euh, euh, suñu maire bu bees bi mu barak lu andil nañu benn filtre bu ñuy permettre ñu ñu segg euh, xorom si nekk si ndox mi ba mën koo naan filtre boobu baax na donc léegi vraiment ndoxum naan dootu fi problème waaye ndox moo xamee dañ sa mën a liggéey loolu moom ba tey problème la donc bu ñu amoon ku ñu jàppale ba ñu génne xorom si danañ fi mën a bay bayum ndër bayum ndër day tax euh, fii am liggéey day tax xale yi mën a toog fii ndax am nañu def parce que bu ñu toogee fii amuñu lu ñuy def ñu ngay jubal Ndakaaru ñu ngay jubal Touba ñu ngay jubal fépp parce que mën a toog ci dëkk bi te amoon loo fa def toog di xool yi suba ba ngoon loolu tamit ci xale day metti donc loolu daal euh, loolu lañ bëggoon wala oy laa ñu euh, dugal ñu si loogu ndoxu lac de bi comme ñi ko ni ñu koy defee ci dëkk yu mag yëpp ñu dugal ñu si loxo nag leen yar bi bu boobaa aussi danañ si mën a liggéey loolu daal mooy ñaari ñaari solo yoo xam ne bëgg nañ see jóglu euh, beneen bi moom mooy école bi école bi euh, daanaka mi ngi commencé yàqu ndax bañ ko tabaxee ba léegi kenn toppatoo ko ba euh, fan yee passé rek jublu nañ si jéem a ñam ñabal li fa tojoon mais il faut que ñu defaraat ko ba mu bëgg a baax.

d'hospitalisation benn salle de consultation muré nañ ko am na ndox am na courant waaye mënuñoo fexé ba légui ba ñu jox ñu infirmière té buñu sañon nak ñu am infirmière wala sage femme bo xamé dana ñëw fi jappalé ñu ba ku fi am tolof tolof duñu yóbbu ba Louga ndax jarul tamit ñu jël ay xaalis xaalis bari mi ñu bari diko def ci ay infrastructure té ñi ñu wara jappalé manam maanaam nguur gi jàppale wuñu ci parce que euh, ñom ñoo ñu wara jox infirmière même su fekkee ñun ñoko wara fay nañ ñu jox infirmière bu ñëw ñu euh, mën a utiliser suñu case santé bi li mu waree waaw loolu daal mooy mbébéet yi nga xam ne ci la ñuy dox te yaakaar naa ne am na njort ne fekk euh, ñuy defaat ndaje dëwën bi yu bari daal danañ ci saafarawu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki Sénégal mbokki réew mi rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan télévision Touba TV li ñu leen doon indil nag mooy li nga xamante ni moom moo xewoon fii ci njaxate njéeri di dëkk bi nga xamante ni njabootuk maam Modou Gorel jaxate ñoo fi nekk te taxaw fi taxawaay bu am solo tey jii nag di won bis bi nga xamante ni ci la ñu doon def ndaje mi njaboot gi yëpp fi ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ci mbooleem gox yi fasantikoo yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi ñëpp teew ñu ñëw fii nag ci sëriñ Moustapha Jaxate di sunu maam waaye taxaw ci dëkk bi taxawaay boo xamante ni bu ama am am am solo la rawatina taxawal fi daara di toppatoo dëkk bi fexe yi tamit ba nga xamante ni rek sëriñ di Maxtaar yal na suñ borom jox ay leeram waxoon nañu nañu delluwaat ca dëkk cosaan yi suqaliku boobu moom mi fekk na ko jaaju bu baax a baax ci taxawal dëkk bi def fi daaray alxuraan gone yu bare di fi mokkalee te mu yor leen en charge waaye tamit di fi defar fi makkaan mu méngoo ak dëkk bi waaye tamit fexe ba njaboot gi yëpp kenn ku nekk mën a dellu siwaat fii ci sa dëkkub maam mën fee am ab pàkk mën fee am tool mën fee tamit di bay di dundee waaye tamit di liggéey ak jaamu yàlla kon loolu daal mooy li nga xamante ni moom la njabootuk njaxate Euh, di def fii nga xamante ni moom mooy Njaxate mu nekk rek diggam ak Louga war a toll ci 14 kilomètres euh, fii ci wetu Kër Daam ci Ndogal Jeng fii la Njaxate nekk di dëkku bu mag nag di dëkku cosaan kon sëñ Moustapha gannaaw euh, bis bi nag mat na ci teewaayu kilifa yu bare wax dëgg yàlla kon nag ñu jottali rek sant yi sant kon daal mbokk yi sëñ Moustapha mi ngi sant mbooleem ku fi teew mbooleem ku ñëw mbooleem ku jàpp ci bis beeg moo ci jàppee rek mi ngi lay sant bu baax a baax te di la ñaanal di ñaan tamit suñu borom may ñu ñu teewe ko nekk ni déwén li ñu fi ñaan suñu borom jotalee yool bi mag ñu tedd ñu nga xamante ni moo taxoon ñu di ko def ak mbooleem jullit borom def ko muy jàmm ci réew mi suñu saxal fi jàmm saxal fi xéewal saxal fi naataange waaye tamit yàggal bu baax a baax Seex Muhammadu Muntaxa moom it yaakaar naa fii fii fii la bokk moo di cosaanam kon moom it ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom gën ko dëgëral ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba yéene koo def ci yoonu lislaam suñu borom defal ko tawféex mu jëfe ko nu kawe njortam te ànd ko ak taalibe yëpp kon jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.